jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen a ñu koy topp saa su ne ci site internet bi di Buzz 24 Sénégal li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy door rek ñëw kii di Marème fay sàll ci réew bi di Sénégal moom ex première ba woon bu ñu sukkandikoo rek ci les échos mu joxe boobu lee xibaar kii di Marème fay sàll nag mu ngi woon fii ci diwaan bu Ndakaaru nag ci takk bi nga xamante ne rek kenn ci ay doomam di Ibrahima Sall doon na ko takk nag waaye mu nekk takk boo xamante ne rek daanaka siwaluñ ko ndax moom ci jëmmi boppam rek doomam bu jigéen la àndaloon bu ñu sukkandikoo ba tey rek ci bobule journal mi joxe Ibrahim xibaar nee na kii di ibrahima sall nag moom moo doon sëy ak kii di doomu tayru sarr moom homme d'affaires bi nga xamante ne rek jege woon na lool couple bi di Macky Sall ak kii di Marème fay Sall mu nekk cérémonie boo xamante ne rek doon nañ ko amal foofa ca diwaan bu yoof fi nga xamante ne rek moom mooy kër papa bi ñu ko papa leen moom xale bu jigéen bi nag ki ñu ko bàyyi leen foofu lañ doon amee takk bi mu wuute lool nag ak kaddu yi nga xamante ne rek fësaloon nañ ko ne Macky Sall dina ñëw ci réew bi di Sénégal moom nag teewul benn yoon ci takk ki nga xamante ne rek moom mooy Ibrahima Sall waaye nag dafa yónnee woon kii di président assemblée nationale di Amadou maam Diop ak ñeneen ñi nga xamante ne rek bokkoon nañ ci nguuram mu nekk nag mbir moo xamante ne rek jamono ji nag daal dinañ koy nemmeeku bu ñu defee fàttali nag kii di Macky Sall bi ñu ko fëggee rek ci élection présidentielle yi nga xamante ne moom la ñu génn nekki ñaari fan nag ci weeru avril la fi jógee ko daal di wëtal diwaan bu Maroc moom ak njabootam daal di fay installé wu mu nekk nag mbir moo xamante rek mbir mu Rar la waaye nak ay leral dal euh, fasina nañ ko ci indi rek ginnaw mom mi xawantene mom mo fi nekkon ancien chef d'état ci jëmi bopam rek euh, jamono ji nak dañ ko dal di tab rek euh, mu nekk envoyé spécial pacte Paris pour le peuple de la planète ñu dippé ko 4P mu nekk parcours bo xamantene ne jamono ji nak ñepp ngi koy waxtane waaye nak téwayam ci réew bi di Sénégal jul am ki di Mariam faisal mom mo dal di ñëwoon rek ak domam bi ngir fekk ci nak mariage domam bi di Ibrahima Sall mi nga xamantene rek